Modulo, c'est un très grand professionnel. Il, il, est en confiance. Mais bien sûr. xam nga un déjà. bu dee dafa am qualité yooyu. pour mu nekk à l'aise si si bëre bi day day day yomb. Il est l'un des artisans de la forme physique de Modulo. Dans le chaudron des salles de sport, le préparateur athlétique sculpte le corps du lutteur. Chaque muscle est développé avec minutie dans le détail. Les exercices sont spécifiques à la lutte preuve d'un professionnalisme irréprochable. Le professeur d'éducation physique Modungom encadre le roi des arènes depuis 6 ans. Dans cet entretien, il raconte la préparation physique du roi des arènes. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes de Aujourd'hui, euh, ñu ngi ak le coach euh, Modou Ngom plus connu sous le nom de coach Ngom euh, ñu ngi leen nuyu maa ngi lay fay Chérif. yow yaay le coach de modulo. Tu fais partie en tout cas des encadreurs de modulo et que tu es d'abord un professeur euh, d'éducation physique et un préparateur physique et athlétique ñu ngi leen nuyu te di la bàyyi nga nuyu téléspectateur euh, di la fay di rafet def rafetlu initiative bi di nuyu euh, téléspectateurs yi nga xam ne si ñu ngi ci suivre jotaay bi nii. c' est le moment aussi ma remercier bu baax Modou Lo mm. si choix bi nga xam ne si. def na ci man parce que y' a d' autres coachs yoo xam ne si euh, ñu ngi fi nekk euh, professionnel euh, comme man effectivement professionnel que je suis je suis en même temps comme vous l'avez ainsi dit mm-hmm. euh, professeur d' éducation physique génn INSEPS xam nga INSEPS moom boo fa génnee rek déjà tu es tu as la casquette professionnelle, professionnelle. Ouais. donc parce que après le bac c' est un concours mm-hmm. pour juste rappeler que ñi nga xam ne dañ koy bëgg def c' est un concours boo xam ne da nga koy def après la sélection on est là-bas pendant six ans six ans de formation et on les mêmes professeurs que dans la faculté de médecine. On oui. fait de l'anatomie, la physiologie et tout. C'est pourquoi quand on parle de d'anatomie de euh, comment dire de la biomécanique mu xaw a jaaxal nit ñi. bu mu leen jaaxal loolu lañ fay euh, jàng looloo tax ñu mën a euh, traiter n'importe euh, quel, euh, type de personne boo xam ne si day ñëw rejoindre ñu même en même temps ñun ma nekk un un coach sportif coach sportif c'est une formation à part boo xam ni dañ koy def. Euh, voilà, c'est ça qui m'a fait euh, aujourd'hui ce que je suis, oui. Euh, capable quand même, euh, comme de beaucoup, diriger les voilà, professionnels pour des non professionnels, les professionnels, comme on l'a vu les, tout à l'heure. et les non professionnels, c'est le cas de, de, de, de Modulo. De Modulo. C'est important de parler du cursus hein, pour ouais. que les gens comprennent que effectivement, il y a, y a, des professionnels qui sont, qui sont quand même derrière euh, le roi des, des arènes. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de vous voir euh, euh, en, en, en, salle, vous vous préparez, on va parler de la préparation. Euh, on, on, voit que préparation bi dafa gën a technique dafa gën a professionnel et qu'il y a deux euh, exercices en tout cas deux concepts euh, d'entraînement yoo xamante ni da nga koy utiliser beaucoup avec euh, le roi des arènes muy la pliométrie ak euh, la proprioception parce que ñëpp gis nañ la transformation physique bi nga xamante ni moom moo nekk ci Modou comment vous allez préparer ak pourquoi nga def ce choix ci ci ñaari exercice yooyu. xam nga tout d'abord euh, Modou Lo c'est c'est un très grand professionnel buy exercer benn métier boo xam ne si. c'est spécifique par rapport ak yeneen métiers yi lu mel na football ak yooyu. Mm. donc bu ma doon encadrer football dama koy encadrer autrement que ni ma encadrer euh, Modou Lo. Mm. Euh, pour rappeler que rek je ne suis pas le seul coach. boo xam ne a des coachs en boxe. et pour montrer que le caractère professionnel euh, bi nga xam ne si Modou Lo da ko am que j'ai aimé chez lui. ba pare nekk à l'aise que bu dee ngeen liggéey ak professionnel. si l'athlète n'est pas professionnel rek da ngay am problème. mais alhamdulilah Modou Lo est un très grand professionnel c'est ce qui m'a permis euh, quand même euh, de travailler avec lui aisément. Mm-hmm. et la lutte maintenant ñun sénégalais lañ dañuy xam euh, bëre. Mm-hmm. donc nekk nga daara da ngay bëre. xam nga sa am la sensation yi donc bu dee da nga am benn lutteur bu ñëw ci yow et pour rappel que je ne suis euh, Modou Lo n'est pas le premier lutteur bi nga xam ne moom laa encadré j'ai eu à travailler avec Ama j'ai eu à travailler en premier Kaw Cissé am na benn boy bu ñuy wax Kaw Cissé mais malheureusement bo ay nattu moo ko dal ci diggante bi donc sur le plan de la préparation maintenant connaissant la lutte déjà le, côté technique de la préparation la préparation exactement et lui on voit que il a, parce que musculation, on parle de programme sèche et de programme de prise de masse. Exactement. Mais lui, on, on, on voit clairement que a, il est sur le plan athlétique, il, en confiance. Mais bien sûr, en confiance parce que déjà, par rapport à la lutte, musculation bi ma ko defal dafa répondre à la lutte. donc loolu moo tax qualité yi nga xam ne si da am ci bëre bi du ko perte te mbër loolu la ñu war a def. Mhm. donc du coup euh, suivant maintenant euh, différents combats yi nga xam ne da koy am. par rapport ak Ama Baldé nga xam ne si Ama Baldé dafa am ay qualité yoo xam ne si da ko am hmm. donc bu dee man dama nekk coach il faut que ma xam qualité yi Ama Baldé am qualité yi Ama Baldé am mu koy daanee képp koo xam ne si adversaire am nga mooy Ama Baldé dafa am lu jafe mooy li ñuy wax force vitesse donc euh, euh, mbër bi bu dee dafa am une masse musculaire dafa war a am ay qualité physique les qualités force bokk na ci mais force boobu noonu y a différentes plusieurs forces yoo xam ne si mbër bi na ko am alhamdulilah Modou Lo yàlla dimbali na ko mu am loolu instant bi nii day affiné rek hmm. donc Ama Baldé par exemple boo ko jëlee force vitesse boobu nga xam ne si la force vitesse mooy force bi nga xam ne moom ngay utiliser en temps record hmm. par exemple ay moins de dix secondes vingt secondes mu baat adversaire am hmm. moo tax bëreetam mu nekk lu graaw ci li nga xam ne si moom mooy ay adversaire am. donc boo ñëwee ci. ci programme bi. mais ci ama. Euh, tu parles de force vitesse. Uh-huh. mais on a l'impression que ci force vitesse boobu ci la ko di daane. mais si la ko daane daf ko contrer parce que déjà euh, Ama Baldé n'a pas une force d'endurance la force d'endurance mooy force bi nga xam ne si plus combat bi day dur di durer. Euh, maanaam nit ki euh, mbër bi day gën a am fraîcheur par exemple moom la daanee lu mel na euh, Eumeu Sène donc loolu Modou Lo alhamdulilah da ko am force explosive nag moom c'est très rare ñu koy gis ci combat c'est le cas aussi tamit deuxième combat ak Eumeu Sène Eumeu Sène gisul sax coup yi ak bi muy daan maanaam tëll la hmm. loolu moom mooy force explosive loo yëkkati vite fait la en fraction de de seconde donc euh, voilà si un benn seconde ba ñaar ba li koy may mbër yi mooy euh, un entraînement spécifique par rapport ak qualité yooyu noonu. donc yaa ngi wax euh, pliométrie moo tax Chérif xam naa ni spécialiste bu man <laughs> war nga nag <laughs> non dama leen gis parce que c'est important man man dama leen gis ngeen préparé et uh-huh. personnellement man maa ko doon wax avec des amis mm-hmm. ce qui m'a frappé c'est vraiment la force et la vitesse et la coordination Voilà. Parce que quand on travaille la, la pliométrie, ça, ça permet de développer cette félinité-là. Super. bu nga xamante ne dañ koy gis chez les félins. maintenant c'est c'est bëgg xam. moo tax ñu ñëw di laaj coach bi effectivement voilà. et lan moo tax ngeen ngeen accentuer l'entraînement sur ce plan. xam nga un lutteur déjà. bu dee dafa am qualité yooyu pour mu nekk à l'aise si si bëre bi euh, parce que bëre beneen qualité à part donc pour mu nekk à l'aise si bëre bi day day day yomb. Euh, vous me parlez tout à l'heure de pliométrie pliométrie mooy euh, dañuy utiliser euh, comment dire un entraînement très intense avec la force pour travailler la vitesse mm. et la réactivité mm. et la réactivité par exemple si am Boy bi muy jël tànk Modou par exemple bu Modou Lo amul woon gaaw am réflexe réflexe si tànk bi peut-être mën na ko mën na ko yóbbu Euh, yaa ngi may wax euh, proprioception. c'est ça proprioception. Oui. comme ni nga ko définir. c'est la capacité de se situer. dans l'espace par exemple ku fakkastalu. ku fakkastalu <laughs> exactement. mais Serigne di nga gis ñenn ñi fakkastalu. mais mais balaa ñuy daanu dañuy telli telli telli. mais <laughs> mais coach si war na leen dem ak étudiant INSEPS pour comprendre yow laa ko. yow en fait yow laa ko non oui effectivement. proprioception effectivement c'est ça. Par exemple, euh, c'est une, une information qui part oui. et qui revient. Donc, pour te permettre de situer dans l'espace, en plus d'équilibre euh, dans vos actions et contrer aussi une autre action. Mm. Donc, Alhamdulillah, on a pu travailler sur ça euh, pour que, euh, voilà, que Modulo, euh, Alhamdulillah, qualité yooyu yëpp mu daal di ko mu daal di mu daal di mu daal di ko am hmm. loolu nag en général moom moo manqué mbër yi parce que mbër yi ñoom jàpp nañ ni que da ngay ñëw rek nga daal di ngande am benn masse mais masse boobu nga yor que ça soit masse graisseuse euh, euh, en priorité wala masse maigre en priorité hmm. bu dee amul qualité yi nga xam ne si day permettre mbër bi hmm. mu avancer euh, comment dirais-je nekk à l'aise si intention yi muy bëgg def di ko bëgg réaliser euh, loolu day nekk loo xam ne si day difficile ci moom par exemple mën naa la jox benn benn c'est comme euh, le cas de sox ak euh, Jackson je pense c'est récemment benn combat la ak Jackson Soq par exemple am na initiative bi am na intention bi déclenché na déclenché na action bi mais maanaam qualité bi nekku fa pour mu mën am ce qu'on appelle une phase de rattrapage hmm. moo tax moom mu njëkk rëpp c'est en réalité Jackson moom moo moo am loolu hmm. pour mën a euh, rattraper wu rattraper wu pour mën a retrouver équilibre am dans l' pour mën a ñëwaat. bu ñu comprendre mën nga am doole mais foog nga attan sa bopp. mais euh, mën nga am doole mais boo ko mënul utiliser attan sa bopp au euh, au besoin. Mm-hmm. au besoin euh, vraiment doo ko mën a c' par exemple le cas de Ama le cas de je pense. oui Balla Gaye comment Boy Niang Boy Niang ni ko daane mooy Balla Gaye dafa amul li ñuy wax proprioception. oui proprioception boobu noonu ko manqué nga xam ne si dafa manqué équilibre. Mm-hmm. pratiquement loolu. moom moo gën a feeñ ci euh, combat bi moo tax bi mu jëlee tànku euh, euh, Boy Niang déjà bi Boy Niang defee un pas daf ko daf ko rëcc daal di rëpp mm-hmm. presque moom yeggoon na sax bu ko Boy Niang xëccoon sax mu mm-hmm. dem mais da nga gis bi mu jógee tey amul équilibre ma ngi def nii di ci gannaaw Boy Niang dafa laal tànk yi nànk mu daal di mu di yegg suuf donc qualité yooyu noonu mënul gérer équilibre non non non te qualité yooyu noonu bu dee amoo amoo amoo un professionnel capable de mettre des exercices yoo xam ne si day améliorer qualité yooyu noonu loolu moom doo ko mës a am man nga gande loo yëkkati mu jëkk mais buñ la dóoree nga daanu buñ la poussé nga fekk nga nga fekk mu fekk la nga nekk en action dangay ngay daal di da ngay daal di yegg suuf. Euh, mais on peut parler aussi de moom bi muy daan Modou parce que euh, lui il a déjà l'avantage d'avoir des mensurations. Uh-huh. et là où il a travaillé également quand il est parti au niveau de l'INSEPS quand il est venu on a vu clairement une différence. voilà la différence benn transformation physique bu extraordinaire. boo xamante il a tout travaillé la proprioception la. mais l'explosivité et. on a vu combat nu mu demee. donc tout ça pour dire que aujourd'hui euh, la préparation des lutteurs c'est dafa war a gën a professionnel en fait. effectivement d'où l'importance euh, bëri di liggéey ak professionnels yi. Mm-hmm. Euh, loolu moo tax ñu war a remercier Modou Lo bu baax. parce que daanaka mu indi sur la table débat boobu loolu ba ku nekk commencé. Euh, di ci wax donc di gën a yee mbër yi euh, mhm. pour que ñu gën a jege euh, professionnels yi. moo Modou Lo la def par exemple moom dem voyagé wul. loolu préparé Modou Lo voyagé wul en tout cas li def ci xelam que le fait que voyagé wul moom moo ko xam. Mhm. parce que c'est un très grand professionnel dem na fi Espagne dem na fi France dem na fi Italie dem na fi plusieurs fois États-Unis liggéey ak coach. Mhm. donc moom par exemple bu commencé liggéey ak coach boo ko yore benn séance ñaar dina xam ni xam nga dara wala xamoo dara parce que. Euh, ci entraînement mi entraînement yi nga koy defal. Hmm. ci lay xamee ni que est-ce que moom ma ngi yokku wala ma ngi stagné wu wala ma ngi. Euh, ma dellu depuis Maris laa ko xam mu nekk un gars très déterminé. Euh, et il est bien entouré aussi. Déter donc euh, détermination boobu mhm. tamit dara nañu taxaw ci parce que détermination boobu noonu frappé na nit ñi surtout ci combat bi ñu parce que gis nañu ñu ngi commencé di démystifier. le côté mystique. Ouais. C'est vrai, c'est le charme de la lutte, takk ay Senghor, indi ay bagages yu ne. <laughs> Tu comprends ci ci arène bi mais en même temps le message qu'il est en train de faire passer c'est que le mystique c'est bien mais d'abord il faut se préparer euh, physiquement d'abord. Physiquement d'abord avoir un très bon encadrement et l'encadrement il y a tout le staff, il y a il y a les coachs, ouais. musculation, boxe ak ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci euh, contact bi ci écurie bi. Mhm. ñooñu tamit c' est le cas c' le moment de les de les remercier parce que euh, ils ont fait un travail colossal. Mhm. Euh, euh, euh, comment dirais mais avant loolu mbër bi tant que amul discipline donc du mën a du mën a comment dire progresser. Mhm. c' est la discipline c' est la persévérance comprendre comprendre nga parce que moom des préparé wu à ce que. défi yi nga xam ni si da koy teg ci kanamam mu releve ko mm-hmm. fi mu nekkoon démb tey jii nii mu romb ko mm-hmm. mais aussi tamit capable de gérer euh, ses stress son stress mm-hmm. Modou Lo aujourd'hui en le en le da ngay xam ne que kii dépassé na ay euh, fu muy stressé wo boo yi koy jël ñoom ñooy stressé wu donc bu doon stressé wu ba léegi euh, ñu ñu mais qu'est-ce qui fait que il arrive à gérer le stress parce que bon quand même mais mais mais ce n'est pas rien tout cela c'est l'entraînement xam nga un athlète s'il est bien entraîné am une bonne préparation dafay am ce qu'on comme li nga waxoon léegi une bonne confiance et une bonne estime de soi mm. donc c'est ça qu'il a en réalité parce que euh, bu dee nga def préparation euh, mu am yu des mu am yu des psychologiquement doo nekk doo tranquille donc Modou loolu moom mooy chance am mm. parce que il a une très bonne préparation pour rappel que moom du entraîné bu amee contrat moom day entraîner hors saison comme on dit. Oui. mu am amee combat aujourd'hui il a il a pas de contrat mais il a commencé. instant bii nii xam naa ne li nekk ci xelam mooy après demain ou bien semaine prochaine mu daal di mu daal di mu daal di démarrer. donc c'est c'est le professionnalisme. voilà c'est le c'est le professionnalisme. et euh, et puis euh, ma ma wax la benn affaire Modou Lo déjà bi muy dajeeg euh, Boy Niang dafa poignet bi da doon metti imaginez bu doon yeneen mbër yi la dañuy dugal certificat médical. Mhm. il na l'a pas fait. il ne l'a pas vous avez vu après le combat gis nga dañ ko fixé. oui donc douleur bu atroce. boo moo tax bi muy door boo ñaa nee bu loxo bi normaloon dëgg dëgg dëgg kon ci premier coup bi lay lay lay wadde wala ci deuxième bi avant muy avant muy yegg euh, ci tànk yi donc c'est ça c'est la c'est la persévérance donc du coup aussi tamit muy liggéey en équipe mhm. mbër boo xam ne si moom mooy gérer tous euh, mystique moom mooy euh, dem lijjanti lii dem lijjanti laa donc loolu da ko bàyyi ak équipe bi nga xam ne si. ñoom ñoo koy <laughs> ah. non non non moom moom dépassé na dépassé na dépassé na foofu ci moom zam-zam rek la ñuy <laughs> waaw waaw mais ba tey. loolu loolu nañ ko bu njëkk la woon il n'avait pas compris. mais quand il est devenu professionnel. Mm. di gis gars yi. Euh, dans les autres mm. euh, ni ñuy comporté woo mais. Euh, euh, très rapidement xam naa ni ci loolu la gis ak moom aussi tamit il faut rappeler que moom ñi muy fréquenté ay góor gi si Dieng les basketteurs et autres ñoom ñëpp ay xaritam lañ donc du coup bu dee du ci jëlee euh, des leçons de vie yoo xam ne si da koy amel da koy yokk ci acti ci wàllu activité bi mu nekk ma xam ne que kon ñoom amul lenn luñ koy yokk ci ànd bi muy ànd ànd ak ñoom donc c'est ça c'est la c'est la c'est la partie je, je parlais tout, tout à l'heure de l'équipe travail en équipe donc à lui mën mënul mënul mënul améliorer euh, comment dirais-je ay qualité de la lutte mm. donc boo xoolee ñi ko entouré ay lutteurs yu extraordinaire ay franc ay yaa ay euh, euh, Pythagore Petit Lo da ngay gis Bakke Faye ñu bëri ñoo nekk ci gannaawam mu jël leen 100 pour cent parcelle boobu nag aussi tamit foofu la foofu la commencé ba pare aussi tamit il partage il communique beaucoup on se parle beaucoup donc du coup bu ñëwee bu dee dafa am douleur quelque part je vais essayer damay essayer euh, tourner un peu le programme pour ne pas coucher là-bas. Donc, du coup, c'est ça euh, le grand professionnel. Et tu, tu penses que justement, tu, cette nouvelle façon-là, tu penses que Moon inspirait vraiment euh, la, la, la, la, nouvelle génération qui pousse aussi hein? Est-ce que yow yaakaar nga ni s'il continue comme ça est-ce que il sera facile à battre. commencé na leen inspiré parce que man déjà. am na ñu nekk ci durant ces durant ces deux combats boo la waxee. Mhm. je on a euh, je lui en ai parlé. Euh, euh, ñaata ñaata mbër ñoo ma woo. Euh, pour encadrement cela veut dire que nit ñi dofuñu ah ouais waaw mais bien sûr donc même bu dee du man euh, euh, man la ñu woo di leen wax ni que y a d'autres courses professionnels qui sont oui. qui sont oui, parce qu'il mais font bien sûr am na ñu fi nekk ñu ñu professionnel ñu fi nekk ñoo xam ne si mën nañu def plus que li nga xam ne si mom laay def peut-être que yàlla dafa def mu am chance encadré Modou Lo am na ñeneen ñu ko doon encadré aussi tamit avant man te da doon am ay victoire donc du coup di wax mbër yi Euh, lamb dafa xaw doy waat. Modou Lo je vais jamais le quitter jamais le trahir tant que waxu ni ma ne coach voilà euh, sama contrat na yem fii wala bàyyi naa wala yooyu euh, donc nga doogaay xool keneen ko mën a encadrer parce que aussi tamit. <laughs> mystique <laughs> mystique bi waaw mystique bi nga doon wax léegi. nga xam ni mystique bi. li muy compter c' est une infime partie. wallahi c' est une infime partie. il faut fréquenter Modou pour xam ni que moom gëmatul mystique. donc entraînement la gëm. entraînement la gëm une bonne hygiène de vie la gëm te hygiène de vie boobu noonu euh, ngay dégg ci moom euh, mën naa la wax ni que Modou Lo bu amee combat day dugg li ñuy wax euh, regroupement. Mm-hmm. day dugg day dugg regroupement yaa ngi gis si interview yi nga dégg ay mbàkke naan wallaahi xaw ma depuis un mois gisuma sama papa gisuma sama yaay tu vois c'est vrai que ma ngi def lu bëri ci ñoom mais aussi tamit ñu ngi koy dimbali lu bëri yore ñaari jabar ci Ndakaaru gii nii mm-hmm. juste pour bégal yóbbu euh, euh, activité bi lutte bi ci beneen level maanaam daf ko yóbbu ci beneen level boo xam ne si tey jii nii daf ko taaral ba am na ñoo xam ne si bëgguñu woon nekk ay lutteurs sax nit ñi les gens s'intéressent euh, bien sûr davantage à la mais est-ce que pour daan ko dina yomb fu mu toll nii dañuy ñaan yàlla mu bañ a sax <laughs> voilà. parce que après après tout cela. parce que les lutteurs sont là te ñëpp te boo yoree boo yoree couronne bi ñëpp dañ koy bëgg. mais c' vrai mais ñun dañuy ñaan yàlla mu bañ a daanu. mu bañ a daanu comme ni mu ko waxee ñaan ko suma borom. en tant que coach am man dama koy ñaanal yàlla mu bañ a daanu ba dem retraite yóbbaale couronne bi tekk parcelle comme li mu koy ni mu koy waxee loolu. moom mooy mbébétam mais yàlla moom mooy dogal mais dañ koy ñaan te moom aussi tamit mindset bi nga xam ne si am na ko ci côté boobu la. Euh, tant que ma ngi ma ngi nekk ci ay entraînement moom jàpp ni que jàpp na ni que yàlla da koy may euh, li mu li mu bëgg. Mhm. te yeneen lutteurs yi dañuy jàpp tant que ñoom ñoo ngi ci lutte bi. bu nu amee euh, sëriñ bi am sëriñ baa. donc dañuy am am na ay lutteurs yoo xamante ni bu ñu defee le même sérieux que moom du ñuy def. mën na am différence mais mais mais bien sûr mën na am mën na am une très grande différence vu que aujourd'hui nii. am na ay ay ay jeunes yu yu yu yu extraordinaire yu yu nekk ci làmb yi yu commencé yu imaginaire ñi nga xam ne si ñoo ko entouré. ñi ma la limal nii ay fa ay ñoom. mbàkke ay petit mais est-ce qu'ils parce que finalement comme li nga expliqué nii su ma comprendre c'est d'abord le mental. xam nga man par exemple euh, encadré wu ma leen spécifiquement pour ñu jëm ci combat. pour ma xam ne que effectivement am na ñu mental du Modou Lo am. Mhm. moom bu amee combat lui il me rassure. Mhm. Euh, euh, personnellement bu ma gisee muy entraîné damay gën am assurance. pourquoi mais euh, xam nga sa athlète bu dee bu dee évolué da koy xam bu dee régressé aussi tamit da koy xam donc moo tax confiance bi may àndal bu dee dem ma gis ni que kii victoire lay ami mhm. confiance boobu noonu grâce aux entraînements ak ni muy évoluer ci entraînement yi. moom laa koy amee. c'est tellement vrai parce que man euh, dama dégg euh, le chroniqueur de lutte Ngagne Diagne. Ouais. Euh, dans une interview mu wax que ni euh, après justement le combat. muy muy muy commenté et ci commentaire am ñu wax que ni Modou Lo ñi leen di wan ni ñoo ko yor ñoo yoruñu ko am na ñeneen. ñu ko yor et moi c'est ce qui m'a <laughs> inspiré en fait pour teg la nit ñu comprendre exactement ouais, ouais. Euh, le programme spécifique bi ñu koy jox effectivement c' est man je j' étais toujours euh, euh, euh, dans l'ombre comme on dit. donc euh, j'ai travaillé derrière donc c' est vrai que ñi bëri xamuñu ma woon. mais lii dafa am solo euh, ça sert à ngay làqatu quoi. Ah, parce que aussi. Euh, voilà il faut que nit ñi xam. Euh, te c'est ça que Modou Lo. que c'est du travail derrière c'est du travail derrière. Oui, oui. c'est du travail derrière donc euh, loolu moom la ñu am. Mhm. ci suñuy préparation ba am résultat yi donc dama nekkoon ci saaga yi nga xam ne si gars yi dañ koy saaga ngay saaga coach am alors que demain man na nekk sa coach su beneen si parce que yow tu es un euh, professionnel là. effectivement c'est ça euh, amul sens ngay nekk di saaga coach su Ngom wala dara c'est parce que euh, coach su la moo tax man du dem depuis Ama Baldé man Pikine gëj naa fa depuis Modou Lo jëlee Ama Baldé wala bu ma fa dee dem damay camouflé wu ba kenn du ma xam imaginez. waaw instant bu ko dem parce que instant comme que moom. <laughs> non non non wala mën nga fa dem comme que nee nañ. mais mais ah, sama xarit la. donc euh, voilà plus sérieusement euh, euh, dañuy wax que sport bu doxee. et que mu am benn star boo xamante ne mooy tirer tout le monde vers le haut. c'est c'est valable dans dans tous les Aujourd'hui, il y a Modou qui est le roi des arènes et il a une formation et une, préparation qui est très sérieuse et professionnelle. Donc ça peut permettre à redévelopper la lutte. D'autant plus que Disney euh, le CNG, en tout cas c'est le ministre des Sports qui a émis l'idée de créer un championnat régional et après euh, faire une, euh, compétition nationale. Tout cela pour dire que Lambodi mène fait et que

loolu dana permettre euh, mu non seulement bu la euh, faire vivre la lutte ba pare génne yeneen révélation yoo xam ne si euh, ñu ngi ci lamba ji di lépp def lu extraordinaire boo demee ba ci àll bi da nga koy da nga koy da nga koy gis donc vraiment c'est à saluer di leen wax ni que ñu créer yeneen initiative yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen gis naa ay claf yu war a am mhm. donc euh, euh, à partir de février je mhm. pense mhm. loolu indi na yeneen mbër yoo xam ne toog nañ deux ans bëriwuñu ñenn ñi toog nañ trois ans bëriwuñu donc loolu euh, lu am solo la di saluer bu baax beneen bi aussi tamit mooy ñu ñuy gën a dooleel aussi tamit à part mbër yi ñuy dooleel professionnels yi nga xam ne si ñoo nekk autour de la lutte à savoir coach yi Euh, salle de sport yi te loolu ministère de sport moom moo ko euh, moom moo ko moom moo ko gérer euh, permettre aux aux jeunes d'avoir plus de formation pour que ñu am plus de capacité mën a mën a mën a mën a gérer te plus mbër yi di rester ici au Sénégal di def seen préparation comme ni ko Modou Lo defee bu njëkk da daan dem États-Unis fii dem kii durant ces derniers combats mu des fii ak ak ñun ñi ko préparé donc du man kese donc loolu day gën a dundal. Euh, activité bi. ok donc foofu yaa ngi doon dugg ci la promotion du sport de façon globale et li mu mën a def ci santé. Euh, parce que si on sort du domaine professionnel. Euh, il beaucoup de de personnes tey jii ñi nga xamante ne bëgg nañ sport. mais ils n'ont pas la motivation toi tu professionnel lan lan nga leen mën a wax parce que tey jii euh, on parle même de sport sur ordonnance. c'est quand tu vas la première prescription est-ce que yaa ngi def sport donc yow professionnel du sport nga. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à, à, toutes ces personnes qui nous regardent, qui veulent faire du sport, mais qui n'ont pas encore la, la, motivation de se lever le matin <laughs> de, de, de, faire comme, euh, comme, comme toi, shérif. Non, moi je suis un sportif du dimanche. Non, non, mais, mais aujourd'hui, yo. Euh, yow modèle nga dama lay publier ci page yi gars yi di <laughs> apprécier gis nañ ni que ndekete Chérif euh, c'est sportif <laughs> voilà non non <laughs> il est sportif donc euh, du coup loolu am na image bu graaw bu muy day améliorer sa image bi nga xam ne si nit ñi amoon nañ ko ci yow donc mais d'une manière générale sport léegi mënul ñàkk ci nit ki donte activité physique la ñuy wax une activité physique peut-être du sport mën na nekk bañ a des sport Euh, nga yeewu suba teel yeeg escalier nettoyer fii yooyu yëpp euh, c'est une activité physique mais de du sport euh, de faire du sport loolu lu organisation mondiale de la santé di digle la mhm. soit 30 minutes de marche marche sportive mhm. boo xam ne si da ngay marche à une vitesse euh, qui, euh, euh, qui tourne autour de 5 à 6 kilomètres à l'heure mhm. ba nga xam ne si sa xol bi da koy yëg bu baax a baax a baax sa muscle yi yëg sa articulation yi yëg loolu dina la mucc loo ci feebar yi nga xam ne si moom solo sonal ñi à savoir le diabète ak hypertension cardiaque et autres foo faut ngeen intégrer au moins benn trois séances euh, de sport par semaine ba pare ngeen dem jege professionnel parce que aussi tamit loolu lu am solo la euh, parce que Sénégal dañoo am tendance dañuy xëy rek euh, soit docteur wax la nga am entraîné ji wala nga xëy rek sentir ni que war nga def sport nga daal di song saal commencé cukki cukki commencé daw mais est-ce que réellement war nga commencé daw si quelque boo xam ne si toog nga dix ans am ñoo xam ne da nga leen di laaj mm-hmm. EPS la ñu tëjoon <laughs> lycée lycée la ñu gënoon de sport mais yow lycée nga de sport ba nekk un directeur comprendre nga nekk nekk nekk ci en nekk di liggéey mm. vingt ans après nga bëgg xëy takk sa daal rek daw moo tax corniche bi gars di dañuy daanu rek oh. je vous dis euh, euh, def naa fa intervention deux fois te xam naa ne ëpp na loolu ñu mu fay wax ni que am na ay cas de décès xam ne oh. dox ba ci yàgg rek euh, moo tax sport boo ko dee def sa demande de l' moo tax organisation mondiale de la santé insiste sur bu dee na nga commencé boo dee commencé de sport balaa ngay commencé demal xooli médecin mhm. mu wax la ni que war nga mën a def nga am certificat d'aptitude dina euh, nga nga nga pratiquer boo paree nga dem ci professionnel mu wax ni na marche ngay démarrer euh, après la marche tu as besoin de ça et ça bu dee da ngay traîner maladie diabète ak yooyu yan muscle nga war a nga war a gën a privilégier euh, war a gën a privilégier endurance ah, mais bien sûr diabète aujourd'hui euh, ñu bëri di ko am c'est vrai la marche c'est l'activité priorité euh, prioritaire pour moom la marche mais à part la marche soxla na di renforcer ay triceps am parce que triceps yi aujourd'hui Euh, ont une connexion directe avec le pancréas qui produit de l'insuline oui. donc du coup loolu boo demoon professionnel loolu doo ko xam Euh, donc euh, te loolu mën na jàppale euh, diabétique de type 2 bi bu baax a baax mu daal di retrouver sa production d'insuline mhm. pour que mu mën a comment dirais-je améliorer santé di wax ne aussi tamit coach yi nga xam ne si ñoo ngi ci milieu bi amuñu formation war nañu mën a defi formation parce que formation yi am na ci wala ñu am dem encadre ñu encadre leen man en tout cas je ouvert am na ñeneen collègues yu fi nekk ils sont ouverts pour encadre jeunes yi nga xam ne si te loolu yëpp day day day jàpp ci développement bi. Hmm. parce que jeunes yi bu ñu amee liggéey. loolu day dimbali état bi. Euh, bu baax a baax. boo tax état bi war a gën a renforcer euh, comment dirais-je. la politique euh, la promotion du sport surtout comité bi nga xam ne si moo géré fitness bi je je l'avais oublié. tout ce qui est fitness remise en forme. am na benn comité CNPPH lañ ko tuddee dont le euh, monsieur Djibril Seck que je salue au passage moo nekk président bi man mi maa nekk vice président bi donc euh, on a prévu pas mal de formation pour les les jeunes da ngeen ñuy bind rek après incha allah di leen wax en même temps nekk président des moniteurs du Sénégal euh, donc di saluer di nuyu képp coach ak képp koo xam ne si rek bëgg nga nekk coach parce que euh, activité bi c'est pour tout le monde. Mhm. Euh, donc euh, il faut une très bonne formation pour que ngeen nekk à l'aise si li ngeen di def mettre à l'aise aussi tamit client bi parce que client bi ngay encadré aimerait quand même t'entendre parler de ta formation. de ton parcours loolu da renforcer mu am confiance. ci yow ba pare mu couvrir la parce que à chaque fois que ngay encadré benn benn client attention. Euh, ta la ta responsabilité est engagée donc bu euh, gaañoo ci sa ci sa loxo et tout wala salle yi aussi tamit bu gaañoo ci saal bi la responsabilité de la salle euh, est engagée da lay yokk crédibilité da ngay gën a am confiance ci si si li ngay te kenn du la yëpp aussi tamit <laughs> boo dee exercer ce ce métier c'est ça voilà c'était le mot merci beaucoup je vous en prie mon frère am am am na solo ñu leen di féliciter et aussi tamit euh, lui il fait partie <laughs> euh, voilà de l'un de mes athlètes. merci euh, beaucoup très assidu très déterminé. merci merci. merci ouais. à vous mu nekkoon euh, donc interview exclusive avec le coach Ngom très connu au niveau des, des salles en tout cas du milieu sportif au Sénégal et c'est lui qui encadre le roi des arènes Modou merci beaucoup on se donne rendez-vous prochainement au revoir.